te ñu bëri ci lañ yaakaar xëy. li ma si mën a dolli. Mhm. mooy ñetti mbir moo yàq suñu géej gi. xeetu napp bu bon bi mool yi dañ koy def bato yi dañ koy def beneen bi yàq suñu géej mooy changement climatique nit ñi dañuy def ni changement climatique mbënd la kese bekkoor kese la tàngaay la wala sedd la. mais ni muy tàngee si kaw jéeri ji noonu lay tàngee ci biir géej gi noonu la glace gi di seeyee au pôle nord ak au pôle sud noonu la ndox mi di yokkee xorom mais xeetu jën bu ne dafa am niveau de salinité mhm. bu mu soxla ci géej gi mhm. benn température bu mu soxla ci géej gi mhm. yaboy bi par exemple ak yeneen euh, espèce démersale yi dañu soxla géej gu tàng léegi ak changement climatique yi géej gu tàng googu ñu ngi koy fekk Maroc donc donc dootuñu soxla migrer ba suñuy géej. dañuy yem Maroc. moo tax boo demee marché central tey nii nga fekk fa camion yu bari jóge Maroc. wala Mauritanie andi jën parce que foofu la yaboy bi di deewee foofu la jaay bi di deewee ñu dugal ko ci carton andil ko. parce que géej tàngaayu géej gi mooy yegg foofu te yow xalaatoo ni sa oto bi ngay dawal mu ngi contribuer ci tàngaayu géej gi. xañ la jën. Mhm. usine bii di lakk pétrole ak gaz di andi courant. mu ngi yokk tàngaayu jaww ji. yokk tàngaayu géej gi yokk xoromu géej gi xañ jën nit ñi du ñu gaaw a def lien yi diggante changement climatique yi ak ñàkk jën après nag napp bu mbon bi ñëw nakk bu sax napp bu sax dàkk boo ko bëggee da ngay xool li ngay nappee ak ni ngay nappee ak fi ngay nappee daf ci am solo bato yi nag soog a ñëw bato yi ñu jox licence mën nga leen topp mais suñu géej yaatu na yaatuwaay bi nga xam ni ñun amuñu moyen mu yam te bateau réew yu mag yi mënuñu def sa géej weer doo leen sax gis doo leen sax yëg. mën na ne mën na ne parce que ay bateau usine lañu bateau bu ëpp cent mètres de lon ah kooku fan lay xanaa day takk téere meles. non non non géej gi moo yaatu c'est-à-dire ñun ni ñu am ci géej amuñu ko ci suuf. Sénégalais yi xamuñu loolu. bien sûr. surveiller suñu suuf métti na sàkkantamak surveiller suñu géej suñu marine xëy na doole ji bariwul ñu ngi jëndaat ay bateau mais surveillance suñuy géej dafa jafe. parce que ki jógee Corée wala Japon wala Chine pour ñëw yàq suñu géej kooku ma ngay làqatu noonu la toppee géej yi océan Indien Pacifique ba yegg fii dans au niveau de l'océan Atlantique pour yàq géej yi bateau européen noonu la ñu kitee xanaa amatul léegi am na mais ñoom dañoo ëpp doolee raw ñu ci bala ngay jot ci internet ñoom jotoon nañ ci cinquante ans avant wala trente ans avant bala ngay jot ci radar ñoom dépassé nañu xeetu radar yooyu mën nañuy dugg sa zone di dugg di génn su sa avion jógee pour xool leen fekk ñoom dem nañ seen yoon mais bateau yu ñu immatriculé direction de surveillance des pêches maritimes DSP xam na fu ñu ne à chaque moment mais yi nga xam ne identifié wuñu leen amuñu licence jóge yeneen géej ñëw di nappee suñuy géej ñoo ñoo gën a bonati te seen mbaal yi ñu wax seen mbaal yi ñu yor mën na juróomi kilomètre mbaal buy dem fii ba université lu mu fekk raakale ko wala mbaal buy dem xootaay lu ëpp 2000 mètres nga xam ni xeer mu fa fekk dana ko toj ñax mu fa fekk dana ko dindi xeetu mbaal yooyu ñoo am parce que suñuy géej bu ñu amee jën un certain nombre d' éléments ñoo taxoon mais éléments yooyu changement climatique daf koy wàññi jën yi mayetuñu leen ñu màgg hmm. bateau yi may ñu ñuy jàmm suñu mool suñu pêche artisanale bi ñett yooyu boo ko boolee moom moo tax jën mënatul am Sénégal ba toll na fu mu ne nii 40 pour cent de notre poisson vient de l'extérieur bëri na jën booy lekk defe ne wu. 40 pour cent ci carton 40 pour cent. débarquement yi dafa wàcc tey boo demee ci teeru yi quai de yi nga dem Kayar wala nga dem Joal wala nga ñëw yaraat wala Caaro yi di nga gis quai de pêche bu wow koŋŋ ni taabal ji parce que jën yi wàccatul na mu waroon wàcce loolu moo tax mool yi amatuñu jën ñuy dem napp yuus bi jën bi nga xam ne moo war a màgg dootuñu ko bàyyi mu màgg ñu napp ko. weer ko ba mu wow def ko boosoos def ko ci ay saaku ñu ngi ci jàpp deux cent tonnes fan yële mu doon dem Guinée je ngi doon dem Togo aussi loin dem Mali dem Burkina mais ñooñu bu ñu amee njën yu sew yu ñu mën a def si lekk ñun dootuñu am jën bu tooy bu ñu mën a lekk soo demee yaraax di nga wër mbedd yi ba mu jeex doo gis ku lakk jën mm. boo demee caaro yi noonu boo demee mm. teeru yëpp noonu et bu njëkk xetu lakku jën bi dafa la doon déranger sax ci mbedd mais amatul mais noonu la foofu teeru yëpp noonu la demee gisoo sax mool bu la mayeti jën mool yi mënatuñu mayee waasintóor parce que amuñu ko après nag immigration clandestine bi am parce que napp bi bu nourrirul son nom. waaw ah bien sûr gaal yi nit ñi dañuy màngaan. gaal yi dañ koy utiliser pour leneen dañ leen jóge Gendar ñëw Kayaar jóge Kayaar ñëw Yaraax Yaraax bar ñi topp tefes gi ba Kafountine ba Guinée. Mm-hmm. mais tefes yooyu bu bu amatul jën mais ñooy ñooy takk gaal dem Espagne. Mm-hmm. d' accord tout est lié.